Euh, mu mel ni suma natango Chérif Dia mi ngi may wax ni Zahra Iyane Thiam mi ngi ci téléphone bi euh, ñi ngi lay nuyu madame le ministre. li nga xam ni moo xew tey assemblée nationale gis nañu ko muy dogal bu tukkee ci député yi nga xam ni ci Benno Bokk Yaakaar la ànd ak ñi nga xam ni ñoo ànd ci Wallu ak Parti Démocratique Sénégal euh, seen projet de loi bi nga xam ni dafay dàq élection yi mujj nañ ko jàllale foofa sans débat. yow ban commentaire nga ci am. waaw commentaire bi ma ci am mooy àdduna dafay dox yaakaar naa ne li xew tey liñ ci wara njëkk jël comme leçon jàngat ko ci mooy àdduna dafay dox te comme àdduna dafay dox même les situations les plus inattendues mën nañu xew ndax 2012 euh, bi ñu toogee woon nekk ci opposition di xeex situation yu mel ni bu ngeen fàttali ko car bloquant bi président Wade bëggoon indi moo indi woon coow loolu te tey yaakaar naa euh, ñi voté lii ñu voté muy euh, dérogation bi ñu wax ci ay disposition constitution yoo xam ne jàpp naa ne kenn waru ko mën a laal ci anam biñ ko laalee car bloquant boobu lii moo ko gën a néew fuuf loolu benn mbir la ñaari mbir ñaareelu mbir bi également mooy bu ñu demee ba PDS ak euh, parti majorité bi mën a ànd lëkkaloo pour xeex loo xam ne kenn ku ne ci évolution politique am na acte bu fort boo ci posé ndax président Wade 2012 bi ñu doon xëccoog moom ci réforme boobu mu bëggoon dugal projet de loi ba moom dafa dellu ginnaaw retiré ko président Macky Sall aussi bi mu ñëwee def na lu am solo ci wàllu constitution bi parce que nee na yi nga xam ne ñaare day nekk débat lool ci réew mi notamment durée mandat bi nombre de mandat bi tëj naa ko def naa ci ay clause d'intangibilité yoo xam ne kenn mënatu ci def dara et pourtant tey gis nañ ne nekk nañ ci situation boo xam ne dama jàpp ne c'est la voie la plus facile moom la ñu tànn souvent nag jàpp naa ne la voie la plus facile peut ne pas être la meilleure parce que li ñuy gis tey quel que soit nu ko nit ñëpp muy ñi ko def ak ñi ko deful ñi ci ànd ak ñi ci àndul quelque fois quel soit par ailleurs foo féete boo toogee wéet di nga ne ay la yéwén waroon na mën a demee nu gën a rafet nii loolu moo tax jàpp naa ne adduna bi ay jàngat la maintenant le plus important ci sama yaakaar mooy nañu fexe ba réew mi ñu bokk ñu seet naka lañ koy jàppee benn ñu seet aussi euh, de manière responsable acteurs yi naka lañ ci war a taxawee ba lii raam bañ a yegg ci ñag parce que nag duñu ay divin mais euh, li ñu dynamique de vie di woon mooy am na yoo xam ne bu xasee tàmbali fi muy yegg soo moytul bu teeree du teer fu neex Euh, mbokk yi moo tax euh, il faut que que que ñu mën a euh, garder la tête froide garder la sérénité et puis voir collectivement tous sénégalais que nu sommes nan la ñuy def ba lii nga xam ne moom vraiment ñaaw ñaaw na pour man ci suñu démocratie ñu seet nu ñuy venir à bout de ça. D'accord. alors euh, madame le ministre Zahra mu mel ni yow lu mel ni ànduloo ndax dangay ngay wéy di ànd di di di nekk ci gouvernement bi wala da ngay jël beneen décision. dégguma Papa Ngagne. ma ni. Mhm. bu ñu la déggee bu baax dafa mel ni dogal bu mel nii rafetluwuloo ko ànduloo ci. du loolu nga wax waaw rafetlu moo ko. moo lay laaj ndax da ngay da nga ciy jël benn danga nga ciy jël décision maanaam da ngay wéy di ànd ci gouvernement bi wala da ci am beneen décision boo ciy jël. waaw loolu xam nga yooyu mooy ay suite wala ay conséquences yoo xam ne loolu du li parce que gouvernement moom nga bokk ci nga bañ cee bokk yow li ëpp solo mooy neewal réew mi nga taxawal te loolu man jàpp naa ne duma ci jóge ndax euh, yoon su amul ci réew kuy dund ci kaw réew tamit tey boo féetewee doole ëllëg dinañ la féetee doole looloo tax ay texte am solo c'est ça le socle le fondement de la république parce que bu fekkee ne boo mënee sa moroom duma mais du sotti te nag saa su ne nit war na bàyyi xel ne tey boo ëppee sa moroom doole suba dana la ëpp doole wala nga gis sa doomu bàjjan noonu lañ koy faral di waxee donc tey li ëpp solo pour man ce n'est pas de savoir fan laay taxaw ak lan laay def mais euh, li ma ëppal solo man mooy tey laay gën a dëggal nekk bi nga xam ne man dama ko bëgg nekk pour réew mi nekkee ko ci anam bi ma jàpp ne boobu mooy bi jub ak boobu moo dëppoog li yoon di wax li ci des nag dañuy bàyyi suñu loxo borom mais ce qui est sûr c'est que yii xew euh, que j'assume totalement conséquence bu si mënti juddu bu fekkee ne mooy conséquence nekk na conséquence boo xam ne day tax mu dëggal ma man ci li may jéem ci nekkal réew mi je l'assumerai également totalement jërëjëf madame la ministre Zahra Iyane Thiam euh, ñu fàttali ne yow moom moo jiite ASEPEX moom li mu wax rek mooy euh, dogal bi moom nekkul dogal boo xam ne buy sagal démocratie la euh, te itam rafetlu ko lu nu mel itam la Youssou Ndour muy PCA bu groupe Futur Média wax moom Youssou Ndour ci communiqué bi nga xam ni def na ko moom tam mi ngi ñaaw lu dàq bi nga xam ni dàq nañ ko élection yi waaye mi ngi xamle itam ni daal mbir la moo xam ni lu lu ñaaw la ndax rendez-vous yi nga xam ni démocratie daf ko am dañ ko war a respecté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 cest di nga ci ki nga xam ni mooy euh, Abdou Latif Coulibaly loolu la wax neena na jëfi Macky Sall ji defoon troisième mandat sax ko gën a. il a parfaitement raison et je pense que le président Sénégal organisé nañ fi onze élections présidentielles. Mhm. ak ci jafe boo mën a gis. Euh, deux mille euh, quatre-vingt-treize président conseil cons cour président conseil cour d'appel bi war a joxe résultat provisoire yi dafa génn délai bi mhm. président conseil constitutionnel bàyyi. vice président conseil constitutionnel ñu ray ko faat ko. Mhm. mais processus bi dafa continuer mhm. processus bi dafa continuer ma jox la beneen 2012. place de l'obélisque gis nga nu mu doon tàkkee mhm. man boobu j'étais à Grenoble dama daan toog même su ma daan liggéey yow mii dama daan toog di la seetaan parce que réew mi dañoo ñor man dama daan toog jàpp TFM di seetaan mhm. même fi ma daan liggéeyee mhm. ngay recevoir sa plateau fii nit ñi di wax fii nii nga gis xeex bi taxul processus bi dafa continuer ba moom président Macky Sall ki la jëlee nguur gi processus boobu président Abdoulaye Wade mënoon a jekk-jekk ni eh réew mi am na coow et cetera ba ko Obasanjo waxee mu ne d'accord kon dama koy reporter moo yoroon majorité assemblée nationale 23 juin pareil sénégalais yi dañoo taxaw ne duñ ko nangu moom président Macky Sall doon na dem place de l'obélisque di yóbbu même mergaddu kon tey moom boo xoolee ñi fi jaar ñëpp moom moo ñëw arrêter le processus de l'histoire dans ce cas il devient l'homme du passif il devient l'homme du passif parce que ñun dafa am lu ñuy bàkke suñu bopp Youssou Ndour mi ngi nii c'est une fierté sénégalaise parce que Sénégal tey jii nii Youssou mais woy na démocratie bi muy woy 44 44 et au baat bi nga ci gën a dégg démocratie lay la wax parce que tout simplement xam na way na Nelson Mandela bi apartheid di am Senghor bokk na ci njëkk a jug taxaw Nelson Mandela ñëw na fii ñu defal ko passeport dañu doon accueillir fii ay opposants ki nga xamante ne moo doon Senghor dem na ba nga xamante ne nee na nguur kenn du ko ñi di dem moowu premier ministre sax moo ko créer primature pardon moo ko créer dugal ko ci dictionnaire france loolu yëpp moo tax dañu am lu ñu liggéey ci patrimoine constitutionnel France bi ñuy def seen declaration universelle des droits de l'homme de 1789 Sénégal dafa yóbbu cahier des doléances comme ni mu aye amee Calais Breton et autres fii nii deuxième tour bi muy am bi Blaise Diagne di gañee ak François Carpeau kon réew mi dafa am jaar-jaar moom processus boobu la ñëw arrêté ko d'accord maanaam donc mooy li Abdou mais mooy li muy wax. maanaam li mu def nii defoon troisième mandat moo ko gën. waaye nag boobu noonu aussi mun naa reprocher ñi nekkoon ci wetu président Macky parce que am na loo xam ne mu ngi ko doon def boobu ba tey dañu ko waroon a woo ni ko li ngay def nii war nga ko bàyyi. mais ba mu demee ba ne day renoncer à une troisième candidature mais man dama ni amu ci woon droit mais l'essentiel bu renoncer dinañ xam ni kat il voulait sa conformer à la constitution moom mu nangu ko wala mu bañ ko nangu. alors mais boo boo duggee dans l'histoire par la porte maintenant génnaat ci par la fenêtre loolu la def tey. alors Ngouda dafa am loo wax dama bëgg ñu taxaw ci parce que le 2 avril da nga ni fa la président di yemal alors bu fa yemee kan mooy continuer. non ah. il faut nga wax ma lu leer nag ci. Sene Info International.